xam que opération bi opération bi nguur pour en tout cas askan c'est une opération exceptionnelle monsieur le maire qui appelle le sens des hautes responsabilités acteurs yi fa confiance di di ko comme ni président bëgg di que na nit ñi xaar liggéey bu ñuy def ak sérieux ak rigueur loolu mooy lan bi ñuy liggéey RNU bi di constituer liste yooyu comme tout travail humain amoon na ay imperfection jar na wax ministre wax na ko sant na gouverneur yi aussi ñu wax ko ba mu leer donc tant que liste boobu wonewul ay incohérence ak ay injustice yu manifeste dinañ ko déroulé wayé ñu dem ci dëkk jël liste bi fekk ma fa fekk sama jabar fekk sama dom fekk sama jabaru dom. quatre appuis ci même cœur alors que yenen cœur yi amuñu lolu dinañ ko corriger bu yeboo nit ñi xam ko depuis légui té dina jox ndigal sous-préfet yi ak préfet yi ñu veillé ci loolu accompagné par les forces de défense et de sécurité ni ko président bëggee